rafetlu lool suñu jotaay yi tey ci suba bi ndax jotaay boo xam ne euh, dafa mën nañ wax ne ñaari tànk la am tànk bu njëkk bi mooy muy ministère bi nga xam ne monsieur le ministre Omar Gueye moo ko jiite muy ministère bi nga xam ne man maa ko jiite bokk na ci instruction yi ñu jot ci monsieur le président de la république lépp loo xam ne dañ ci war a ànd lëkkaloo ci pour liggéey ko mu jóge ci état bi jëm ci population yi ñu ñu def ko ci anam bu gën a mën a jaxasoo bu gën a mën a am symbiose ak osmose rawatina bu fekkee ne li ñuy liggéey pàcc bu ñu bokk la ndax ñépp xam nañ ne ñun ci suñu wàllu lettre de politique de développement sectoriel am na pàcc bu ciy wax ci wàllu économie sociale bi ñu bëgg def ban taxawaay la ci gox-goxaat yi war a am yéen ci seen wàllu bopp ci seen lettre de politique sectorielle et de développement aussi am na taxawaay boo xam ne gox-goxaat yooyu nga xam ne yéen dañu bokk ci seen tutelle dañ ko war a am kon lépp lu ñuy def bëgg ko jaarale foofu faw ñu waxtaan ci ak yéen seet nuñ ciy àndandoore pour def ko ndax jàpp nañ ne jëmuwaay bi benn la kon loolu bokk na ci li tax nous euh, avons une convention mais beneen bi aussi mooy loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire dafa am pàcc un acte 3 de la décentralisation mou gën ko collectivités collectivité territoriale nous avons ñun ñu jàpp ne li ñuy def bunt bi manam euh, économie sociale et solidaire ngëneel yi forme d'entrepreneuriat bi nga xamné mi ngi indi pour acteur économie sociale et solidaire yi mën collectivité territoriale bi da politique publique au niveau déconcentré fofu lañ koy défé motax ñu plan locaux de développement yi sax war nañu exécutif locaux yi war nañ ci mën bolé patch économie sociale et solidaire mo pàcc boobu nag ñoom mënuñu ko def te wuñ ci direction du promotion de la promotion du développement territorial bi nga xamné amna expertise amna na pour lolu kon lolu yëpp buñ ko boolee day daal di nekk lu am solo kon ñaari mbir yoy taxna na ñun wa ministère de la microfinance ñi ngi rafetlu bu baax convention bi nga xamné ñi ngi koy signé ak ministère bi nga xamné sama collègue Omar Gueye moko jité ñu jàppale na ñu japp nak né luy door la ndax ci loi loi 2021 du 28 du 15 juin 2021 bi nga économie sociale et solidaire def ci teunkalé encadrement RSE xam nañ RSE e ñu koy Sénégal mais nous ko encadrer dorénavant loi bi encadrer RSE RSE encadrer la collectivité territoriale am aussi patch buñ ñun jàpp nañ ne même loolu buñ koy def aussi mënul waroo ak ministère collectivité territoriale donc yooyu ak yeneen euh, banqaas yoo xam ne ci kanam loi bi buy au fur ñu koy tabax da koy soxla pour mu gën a am dëgër laay jàpp nañ ne bu ñu xaatimee convention bi day indi buntu ci loolu lépp moo tax euh, gëm naa ne liggéey boobu nga xam ne ñi ngi koy xaar ci ministère collectivité territoriale service yi ci seen bopp danañ ci taxaw taxawaay boo xam ne dina mucc ayib ndax convention bi tënk na service bu ne nan la war a taxawee mais li tax suñu xel gën a dal ci loolu mooy bi ñuy préparer liggéey bi yépp service yee ko def ñoom ñoo toog xalaat waxtaan ba trouver yoon bi gën a mucc ayib pour ñu def ko loolu benn la buy dal suñu xel mais beneen bi gën a dal suñu xel mooy taxawaayu ministre bi bi nga xam ne au delà de engagement wam en tant que ministre xam nañ taxawaayam ci réew mi taxawaayam ci liggéeyu président Macky Sall nañ koy defee ak lam nam ak portage bi mu porté kàddu gouvernement bi kon yooyu yëpp dina gën a dalal suñu xel ci ne li ñu ciy sàkku dinañ ci am. am nañu mbégte tey ñu signé convention bii nga xam ni signé nañ ko euh, mu jagleel seen label ESS ci laa bokk nga xam ni sa département ministériel moo koy doxal sa département ministériel nag. dafa am solo ci suñu réew économie sociale et solidaire wax nga ko léegi dafa sur ci les cinq initiatives durant l'initiative du président Macky Sall mon PSE vert mon PSE jeunesse mon PSE économie sociale et solidaire mon PSE Sénégal numérique mon PSE cap vers l'industrialisation durant yooyu l'ingénieur nga Ce daf cee bokk maanaam président Macky Sall daf ko fonk ndax ci développement suñu l'économie économie sociale solidaire foo dem dang ko fay fek nit ñi di gorgolu di liggéey pour ñak jariñu lolu nak bu fekkente ni amna nga comprendre bu baax nak luy décentralisation ndax ginaaw bi président Macky Sall tégué plan Sénégal émergent tek ko ci ñetti poñ dafa indi acte 3 de la décentralisation nga xam ne dafa révolutionner collectivité territoriale ndax ñu ñëpp xam nañ ni avant dafa amone ay communes ay communautés rurales ay régions mu ni léegi ñaari ordre mo am département ak commune maanaam commune bu nekk fii ci réewu taax yi ak commune bu bu gën a sore nekk ay Médina Yoro Fula ñoo yem gëdd ñoo yem dayo amul kenn kuy jiitu moroomam ensuite mu jël ay koppar yu bari di ko def ci fonds de dotation de la décentralisation loolu lu am solo la ñu koy fàttali ak programme yu am solo yu mel ni PACASEN e 130 milliards pour 123 collectivités territoriales PNDL def liggéey bu am solo ci biir réew mi Euh, ADM ak yeneen projet mu euh, le PNADT ah, le plan national d'aménagement et développement territorial nga xam ni Sénégal mosul am plan boobu le président Macky Sall taxawal ko tëgg benn loi la loi d'orientation pour l'aménagement et développement des territoires mu porter PNADT bi nga xam ne lépp lu ñuy def léegi dañ ko planifier dans l'espace planification spatiale Les lu ñu war a liggéey 2035 xam nañ ko ci wàllu autoroute ci wàllu route ci wàllu port tu as l'aéroport tu as l'agriculture tu as l'élevage tu as le pêche tu as l'université tu as l'isep tu as le teg nañ même pétrole gaz qui gaz, découvrir mais c'est ci biir PNADT bi nan Donc, il y donc yooyu yëpp bu ko président Macky Sall décentralisation de la a la décentralisation c'est ñaar yor collectivité territoriale à la déconcentration hmm. déconcentration c'est les services déconcentrés de l'État dañ am salon particulièrement le ministère du président Macky Sall les services régionaux d'appui au développement local les services départementaux d'appui au développement local mais surtout les CADL les centres d'appui au développement local véritable survie ouvrière à la base c'est le principe de la subsidiarité madame. le looy def def ko fu pour efficacité service yi yu am solo

mais ah wax deux yàlla de convention bi ñu signé tey lii la jur pour moi am suñuy ministère nañ ci mais ñii ñoom ñoo ci gën a ñoo ci en relation avec les autorités administratives gouverneurs préfets préfet ak sous-préfet